Euh, Ahmed Khalifa Niass da cee mhm. bokk mënuñu ko ñàkk euh, dugalaale bala ñoo tàggoo mhm, mhm. Ahmed Khalifa Niass euh, nee na Ousmane Sonko li mu def diine santaane wu ko te nee na comme day jaay ay aay yu muy tare ak ay kii yu muy tari dafa waroon a waxaale xaddis bi nga xam tari na ko nii doonte nee na xaraamal na nga jéggi fi jumaa ba mu des jumaa ji ak ji lim na ba muy ñett noo gisee discours am beeg li mu wax Ousmane waaw bu dee xaddis boobu moom am na ndax jëf ji Ousmane def ak addis bi moo méngoo loolu la ñuy réglé ah waaw mais xadis bi lu am la gàddaay ci jumaa ngir jumaa yonent wax na ci wom su ma ne. Hmm. jumaawam nag mooy. madinatul munawwara hmm. ak makka baytul maqaddas hmm. léegi nag est-ce que Ousmane dafa demoon di julli ji jumaa wala dafa demoon di ziyaare ji. waaw Ousmane moom bu ñu jegee ci ñi ñi doon wax dafa demoon pour ziyaare ji. waaw léegi léegi ajjuma jooju ñaata nit a jullee ci jumaa jooju. yow sooy bu Tuubaa ñaata yoon nga fa julli jumaa jouru màggal Ah, wax nga dëgg de. ñaata yoon leen julli jumaa Tiwaawan juru màggal. wax nga dëgg de. juru gàmm. wax nga dëgg de. ñooñu dañoo gàmm ji jumaa fekk leen fa ñu julli jumaa nga dem di ziyaare ji jumaa fekk la fa nga julli ji jumaa. Mhm. loolu amul benn lien ak li bi doon wax. amul benn lien mhm. kii dafa gàddaay yi fii ngir dem ci jàkk ci lu dul benn illa mu jaral ko mu jógee fii dem ba France. Mhm. ngir julli ji ñëwaat. waaw te romb ay jumaa yoo xam ne amul benn sikk bu mu mën a wax ci ñoom lu tax mu jégg leen amu fa. kooku la yonent di waxal mais ki nga xam ne am nay am di jàmm ami wëllëre ami soppe mu dem di leen seeti mu tombeek àjjuma mu dem julliwaale fa juma loolu loolu bu doon loolu ña jullee juma keroog boo leen xaajoon ci digg bi xaaj ba yëpp du ñu am juma parce ñi ci ëpp lañ jógee ñi jógee Thiès lan moo tax mu taamu ko ci moom kenn hmm. te ñi fa jullee keroog ni ñu bare lu tax julleem kese kese moo war a yàqu julli ñi ci des du yàqu te ñooñu Mhm. benn adversaire politique buy wax ak adversaire politique am. d'accord loolu rek la mais amul benn lien ak diine. macha allah te jàpp naa ne sax polémique bi ci amoon ci doo fi jullee jumaa dañ fiy jullee juma sooy bu juma kenn du ko tere. vraiment waaw juma kenn wa annal masajida lillah. walaay fala tad'u ma la ahad walaay walaay. sëriñ si tamit yooyu foog ñu bàyyi ci xel. Mhm. diine jii kenn mënu koo yàq ko du nitu diine ma wax la ko. Hmm? waaw Cheikh Omar wax nee na nitu diina dong moo mën a yàq diine ji donte nag pour mu yàq ko foog mu complot ay nitu nguur maa afsada diinu si wal muluuki wal ulamaa ussuui bil ufuuki d'accord nee na diine ji dara yàqu ko lu dul borom xam-xam yi ak nitu nguur yi d'accord waaw ñu def ci